asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñuy ñaanal ki nga xam ne moo fi jógee muy sunu mag Pape Dia yàlla xaare ko aljana aljana fi daw si ah, damay nuyu nag sama famille yëpp sama yaay sama papa samay frère leemu ñi nga xamante ni ñun ñëpp bokk nañ ak ñun naqar bi di nuyu aussi soxnaam bu baax di ko wax ni mu gën muñ muy yaata ñaan mu sëy pap sëy bu moom ñu koy ñaanal yàlla mooy ko xool muñ euh, di nuyu euh, monsieur le ministre Matar Ba di ko sant si déplacement bi di ko ñaanal yàlla fay ko yiw bu mu déplacé wu. di nuyu monsieur le ministre Omar Youm collègue Pape Diallo bu wér moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla fay ko yiw di nuyu euh, monsieur le préfet Ndaw euh, di ko ñaanal moom it yàlla fay ko yiw di nuyu Fallou Sylla monsieur le maire ku ne xam nga ni mooy wóllare Pape la. ñu ngi koy ñaanal yàlla delloo ko yiw moom it président Alioune Sarr euh, yooyu ñu lay gërëm bu baax di gërëm Mohamed Ndao Tyson euh, di ko ñaanal moom yàlla delloo ko yiw président Mbaye Diouf Dia moom it wëlëri Pape la moom yàlla na ko yàlla delloo yiw di nuyu Cheikh Issa sama xarit la sama wëlëre la ah ñi nga xam ne ñoo bokk mbir mi ñuy muy làmb ak euh, Ousmane Gueye parce que la parce que la moom kenn la si ñun kenn la si Pape Pape na ko doom boo xam ni am na treize ans kon loolu wëllëre la di nuyu bi aussi sama goro la ki nga xamante ni Matar Ndour ki topp si man mooy soxnaam moom it depuis boobu ba léegi euh, ñaxam énergie doole ñëpp mu ko si def di ñëw sama mbokku mbëri nga xam ñoom laa bokkal mbir mi yëngatu muy métier yàlla nattuñu suñu koy def démb yaxe jo ni ñëw na fi ah Gris ñëw na Eumeu Sène ñëw na ah guy gi ñëw na tey Tapha Tine mu ngi nii sama ginnaaw tey ñëw na Modou Lo dégg naa ne mu ngi soog a yegsi Xaadim Gadiaga kii di sama rakk yi di boobu assurance mu fi ñoom Cheikh Niang ah wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi fi kon ñu ngi sant bu baax ñoom bu ñu teewee rek tey mu ngi nii sama ginnaaw eh, kon suñu teewee rek ma ne teew nañ bëri yëpp di sant aussi communicateur traditionnel yi du ma lim nag mais damay jël kàddu gi teg ko si loxo Bécaye Mbaye mu wasaare ko si ñëpp di seen reporter yi yëpp eh, di gërëm population Mbour population Sénégal monde entier tey nag li ma tënk sax yaakaaru moom dinaa ko wax parce que ku nekk xam ne douleur bi ma ah, ki ma ñàkk ki jóge si man tey yaakaaru moom sax dinaa tenir tey pour wax si wax si moom répétition la rek ndax seen papa mu dund mais tey ñu bëri xamuñu ko Pape Diagne lañ dëkkee ñu mooy papa te dañoo ni képp koo xam ni seen taaw kër mu ngi dund joxoo ko cër nga ni papa doon dund naa ko ko jox cër ah Pape nag mm, li ma si wax ginnaaw li ñu dund man ak moom daf ma yàq te ay nit bokk nañ ndey ak baay te déggoo mais moom dañoo bokk ndey ak baay man ma nekk ñetteelu rakam yàlla def ñu bokk benn kër ba nga xamante ni tey lépp loo xamante ni ñu ngi koy wax si man ni ko lay communiquer comportement am yaram yëpp Pape Diop mooy sama idole si moom laa ko jëlee tey nag perte bu mag vide bu mag laa am mais dinaa def rek ay quelques témoignages si moom euh, Pape damay xool ay mbiram ba mu yàgg ma ni missionnaire la man après ay soogu bi soo ko rendre compte ni mënu woon gudd fan parce que euh, ku ku mënuñu rek dalay tax si xolam dalay accolade man defoon naa ni sax carte bi la ko la ko jamale mais monde bi yëpp ko wax mooy le Pape bu ma nuyee mu njëkk moo dalay xëcc accolade la tax na si dana ko te loolu defe baax la mu indi ay leeral nag Pape yàlla dafa def loo xamante ni xaj na am na ñu ko xam am na ñu ko xamul mais deux yi ma génn dama dund tristesse dund loo xamante ni yaakaaratuma sama àdduna mën naa ko dund muy naqar moo wooyee lu mat ay deux trois mois Pape dafa tawat ñu yóbbu ko tarfaan mu nekk fa feebar di gën di avancé bala ma ñëw ci yooyu sax dama leen di leeral si ñaari mbir euh, Pape même gëm la demandé gëm gëm bu wër te nit ñi nekkatul booy wax si moom nga doon lu dëgg euh, bi ko tey bi daanalee ñu dem fan feebar bi reculé ñu évacué ko yóbbu ko France dinaa leeral loo xam ni tey man naa am dootuma ko waxati te as ci bi ni ko téye ñu demee dañ koy defal bilan defal yëpp vingt cinq jours avant médecin bi woo ma ma ñëw mu ne ma kii mënatul dund vingt cinq jours billahi lazim imagine tey te li si gën a naqari mooy paap mi nga xamante ni moom lañ ko wax xamu ko te man ñu wax ma ko te man li ñu wax gëm naa ko moo war a dund ak moom vingt cinq yoo xam ne xam naa ni kii daf may quitté lan moo gën a métti loolu hmm? euh, bi mu nee loo xamante ni bu laa leen di wax la jullit daa xam waaw dem na ba tëdd si la lopitaan mënatul julli mënatul jóg toog maa koy may ndox muy jàpp tëdd si kaw la lopitaan di julli billahi wallahi tallahi waaw xam nga booba dee nag foofu la xol li jullit mun a def mu jikko mooy delloo boppam ci yàlla parce que loo mënul dara da ngay ci yàlla dogal nangu ko su ko defee nga am jàmm mën a continuer jàmm yàlla. ah kay Mouhamed Ndaw ak euh, Alioune Sarr Bekkaay ku ci nekk xalaat na protocole waaye dëj moom kenn du ci wut dara ja dañ jaamu yàlla ba tax na ku jël kàddu rek bu fekkee dara tënkuñu. war nañoo mën a toog déglu la parce que lépp ay seede la te seede yooyu seede yu baax la te yàlla daf koy déglu te mun na cee def yërmande ba ki fi génn yàlla xare ko ca kon dañu jàpp ne li ñu fi dégg dal na xel dëj nag bokk naa ci ñi nga xam ne lu mu xam moo tax ma ne Alioune jëlal kàddu parce que moo ma gënoon jege ki fi jóge gis naa ko ñaari yoon. waaye seede yu wër ñoom ñoo ko mën a def ñoo liggéey ak moom leneen li ma ci xam mooy papa Abdou Fall maa ngi lay ziar ñu waroon a ànd waaye comme dañ laa xaw a jiitu ñu ngi lay jàll di ko jàll képp ku bokk ci làmb ji di ko teg ci loxo Alioune bu ñu ko ci tegee rek teg nañ ko képp ku bokk ci làmb di wax nag li ñu xam ci moom parce que doomu aadama bu génnee àdduna aussi li nga xam ci moom rek nga mën a seete ñaar yoon laa ko gis te mook Bombardier ñoo àndoon te bu ñu àndee toog balaa Bombardier di yëkkati kaddu dina leen jox sama mag ji mu wax ba pare te bu waxee ba pare moo li Bombardier di wax yëpp la loolu njàngat bi ci mën a am mooy nit day fonk mbokkam boo amee rakk walla nga am mag mu nekk ci mbir bu gees soo la gis te fexe ba seytaane du dugg seen diggante te làmb ji ñu nekk nag dafa bari mbir ba tax na ku ci àndul ak xel ànd ceeg yar ñu jaxase rek say mbokk te bu bés jotee boo geetoo sa mbokk nga war a gis kon nag li ñi tey seen mbokk yi te xam ne lii dana am ci ku ne li gën nag mooy fépp fu mu am ku ñëw mën a xool ki ngay seet te dara du la métti wala doo rus loolu mooy ci jongante la ñu ne waaye mbokk lañu su jongante bi paasee ku nekk dafa war a jox sa morom loxo man damay am mbégte su ma gisee làmb ji bu safaan xewee dañ koy delloo rek ci yàlla waaye bu mbégte xewee da ngay gis waa làmb ji yëpp daje loolu mooy wane ne ñu ngi jox signaux ñi nga xamante ne dañ jàpp ne làmb mbiri caaxaan la wala mbiru dof la waaye fii dof newu fi du kuy tëgg làmb du kuy bëre du kuy seetaan ñëpp ay sénégalais lañ yàlla naxtu leen ñu bëgg benn sport ku ci ne di ci def li nga mën kon joxante loxo yi ak seddewante lu baax lu xew ñëpp daje joxante loxo loolooy tax képp ku ñu gëmuloon nga gëm ñu moo tax bi mbir xewee président Macky Sall nekku fi waaye tey bu ñu fi ñëwee di la jaale ba mot dañ lay jaale ci daraje ji nga xamante yàllaa ko jaarale ci président Macky Sall ñuy ministre des sports kon bu ñu lay jaale dafay tëdd rek ne président Macky moo lay jaale waxtu yi ñu toll parce que nag dëgg ne ci moo gën nekk ci safaan bi ñu jógee di ñëw ministre bi di ñëw ñu ne nañu ànd parce que moom ci département bi la bokk ñi fi des nekk yépp ci biir mbuur lañu ñu bokk suñu la jaalee jaale nañ bépp doomu Mbour bu ñu fekkee nag le maire Oumar Ousmane Gueye fekk fi mbay Diouf Dia fekk fi Cheikh Issa Sall ngeen dëkk ci biir mbuur gii ngeen dëkk fekk fi le maire war na ne ak lu mën a xew waa Mbour yépp a joxante loxo yéen a fi toog di liggéey mais ku nekk jox sa bopp war ma kon suñu mag sa mag jooju nga xamante yàlla moom na ko te nga ànd ceeg dal ànd ceeg gëm yàlla parce que ñu ngi lay suivre ci réseau yi di la ci li ngay wax yaa ngi jàngalaate te xam ne lu métti am na waaye delloo sa bopp ci yàlla moo gën lépp te def nga ko kon dañ koy ñaan rek fee mu tëdd gënal ko fii mu nekkoon musiba yu mel nii gëj fii parce que dee moom ku koy caaxaane da nga xamul yàlla miy def dee sax musiba la ko tuddee du lu baax su amee il faut mu métti waaye bu méttee boo delloo ci yàlla mi bind mu yomb ci yow monsieur le président du CNG maa ngi lay sant ku la sant sant ñi bokk ci làmb sa taxawaay fii ak feneen jàpp nañ ne lu baax la ku mën lépp amul nag kuy def lu ñëpp bëgg yi amul waaye kuy def te yàlla tax ñi mën a gëm dinañ la gëm ñi nga xamante ne yéen a jiite làmb ji ñiy bëree ñiy supporter ñii nga xamante ne ay reporter lañ ñii di ay animateur ak ñii nga xamante ne ñooy tas xibaar yi yéen ñëpp yéen nekk ci benn gaal gaal gi nag nañuy ñaan jàmm rek di ci am parce que loolu njiglaayu Sénégal moom mooy li ñu jig ñun ñi ñëpp ci yow lay jeexale Bombardier parce que ku am yar nga man du ma seedeel nit lu ma xamul man lu ma wax ci nit rek loolu laa gëm te loolu laa gis ba ngay bëree nekkuma milis des daje nañ Fatick ci benn rencontre maalangook yu demee noonu nga nekk nit ko am yar def fa comportement boo xam ne ñëpp naw nañ la keroog maa ngi fàttaliku séeréer si yëpp ñaanal nañ la boobu nekk ko woon roi des waaye ñaanal nañ la li nga wuy ci li nga ne nga am ci ndam yàlla def na ko tey ba ma la rencontré rencontré waat lay ci fulla laa la gis ci fayda ak wax ju am teggin waaw ku ko ci def nag mu topp la teggin moom du jeex ku ko ji ñi rek mu topp la waaye ku ji nit ñi leneen leneen rek ngay am tey ñi fi ñëw yëpp Pape dañ koy ñaanal mais ñu bëri it yow yaa tax ñu ñu déplacé wu ci sa yaram ak sa teggi mm. kon loolu bu ci jóg yàlla la gën a baax fopp moom mi la ko joxoon dina la jox bu ko gën wala bu mel ni moom mu jàppale la ngeen nekk ci li ngeen war a nekk muy njëriñi askan bi maa ngi sant ñëpp di gërëm waa làmb yëpp di jéggalu ci kaddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah